daam safar jógal te yaa fi way été way suwaasir murit yi di bég wayal teraanga yi daam safar jógal te yaa fi way été way suwaasir murit yi di bég wayal teraanga yi teraanga yi sëriñ Bamba yaa ngi fu fi dara ne tey Ahmadoo ko def moo ko liggéey nan topp ndigal ndamal murit bi xam li ko war mooy topp ndigal màggal gi mooy ndigal lu wér moo mat a jëfal màggal gi màggal ko bu wér daal di koy dundal di jàng kay ñaan kay bernde topp ndigal màggal gi day ndamul lislaam tey li mu ñu defal moo ñu sagal moo ñu sigil bés bee ñu teral ku fi am jàmm bay sant di suy te waral ngay sant bés baa ngi bàyyi daam yaa ma leen gënal loola waaye man di wax itam bàmbaraw na leen màggal gi firnde la si bés bii bu ni mel amul li an haasal yow mu yow mu sukkur wadduha aka waxtaan ne daam jàng xasida ñu lay teral xeetu cant gi nii la dee ko bàyyi xel iqra bismi rabbika jël xasira tofal bu nu xëyee na sañ sa xay te selite yu lii sekk jes ne solal palmaan lépp teraanga la ci lu ceraak laa fa maxtu ay maraakiis xaftaan bu jot kurus kaala lii teraanga la faslun fii bernde bernde it ci la café Touba ki meew si xew ju lépp teraanga la beñeb fariñ ak mburu mbaa sax moom beñeb dugub keeke ki met leen dañuy servi cey teraanga yi taaj raxasu lal napp teg booli bernde nii lay demee ñuy servi ndox yu sedd yi wala lépp teranga la ñee mis yu xar ñee ñooñ ganaar ñee saa fixati naa tekki koppin uwaa yaa nga lépp teranga ceebu ceebub suyeer ceebu ngot cerey taalaala ja salaat sun orne dañuy servi lépp teranga la ñeent ak bool juróom ak bool dabi màggal du xat du am seeñu du am ñiit teranga yee doy tufe couscous mbaa macarona bool yaa ngay tege vermicelle ba mbaa petit pois lépp banaana ak orange raisin xeeti bernde la soow piir ak day teew ndax teraanga la musuwaar asete kirdan afta bernde la ataaya ak si ngom dina tegu sa lépp teraanga la kilim ya di sedd ventilo yu upp frigo yey sereel murit ya di bég màggal nga neex lépp teraanga la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh